gërëm leen sant leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di 5M TV Sénégal di fi teewloo xibaar mbokk internet yi jotaayu xibaar yi dañu koy tàmbalee ak njiitu réew mi di Bassirou Diomaye jaxaar Faye di dem ca Touba ate ji nag di waajal kon rekk lu jëm ci ziar bi laata màggal bi foofee ca xalif général des Mourides di Serigne Mountakha basiru Mbacké moom nag kilifa gi bi mooy ñetteelu yoon kon muy dem ca Touba rek daal toog ak xalif bi ñeel nag ba njëkk bokk sàkku na ci rek ba mu jotee kon réew mi doon rek sàkku ay ñaan rekk ginnaaw kon juróomi at yi nga xam ni bëgg na ko fi def mu def ko ci ci jàmm ci salaam waaye itam rek ak soqali réew mi euh, tax na sax ñaareelu nag visite bi moom njiitu réew mi nag ci ñeenti fan ci weeru sulet la ko amal ñeel kon rek bëccëg bañ doon def rekk ci wàllu jëmbat garab ndaje boobee kon ñu amuloon ko ca Touba ca teewaay ki yore kàddu xalif bi di Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké tey ji kon nag ma ngay dem ca Touba ñeel kon rek wàccaayu màggal Touba bi nga xam ni ñu nga koy ama rek jëm ci dellusiwaat bi nga xam ni Cheikh Bamba Khadim Rasoul ñëw na ko dellusiwaat na ko ca dëkk bu sell ba kon moom njiitu réew mi ñeel li nga xam ni mi ngi koy amal saa su nekk waaye itam rek di ko sàkku foofee ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké tax na kon rek ñu jàpp ni lu am solo la ñeel itam ci wàllu koom-koom bi wàllu aada bi ak itamit rek lu jëm ci luy doxal réew mi màggalu Touba caatu atum 2024 bi dinañ ko amal kon aljuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru u ginnaaw googee kon ñu ni juróomi million doomu aadama danañ ko daal di teewee